Uh, bikum ñetti doomu aadama yu bokk benn njaboot benn kër la korona ba dugg faat leen allah turbine yéene kaay ñu ko xamal yëf yaa nga xamee ca ndakaaru ñu ne déete waayati démb korona bi rayati na juróom-ñeenti doomu aadama ba tax na fi mu toll nii Sénégal weesu na juróom benn téeméer doomu aadama yu korona bi rey wal fajiri yéene kaay na université bu ndakaaru limab ña fa am fi mu toll ni korona fa bëri ba tiital képp ku ko dégg le quotidien yéene kaay na ko diiwaanu Kaolack tamit ak mbuur korona ba tasaa tasaaroo na fa de risque la fi mu toll nii lii quotidien na leen bu leen fàttee diwaanu Ziguinchor ñoom fa ñoo bàyyeendiku ci jël matuwaay yi ñu waroon a jël ngir moytu corona bi l'observateur na leen xanaa ñoom yëguñ ne président Macky Sall ci boppam sax jiiti réew mi fa aar boppam jël ay matuwaay ngir corona bi bañ koo dal gis ko wala toog ak moom moo jafe fi mu toll nii presque fay daw nit ñi naka noona tamit xalifa général yu bëri ay kilifa diine ba ci jàngu bi église bi ñoom it jël neen seen matuwaay seen kër yi ngir fàggandiku moytu corona bi réew mi yéen na bi nga xam ne nag moom la ñuy xaar ngir mucc ci corona bi mel ne danañ ci yéex a yaaw seetal réew yu am doole yi fa ñoo ngiiroo xuuf paa jël lépp ci vaccin yi enquête yéen a kaay dëggal ko na ko Washington la ak London ñoo jënd presque vaccin yi am yëpp réewu Europe yi sax fi mu toll nii fa ñoo xam jafe-jafe ci am vaccin ba tax yéen kaay bi ne léegi waa léegi ñun réewu Afrique yi nga xam ne ñun fa ñoo néew doole ndóol ñàkk xamuñ xaalis bu bëri bu ñu mën a jëndee fan lañ jëm suñu yaakaar yëpp ci COVAX bi lañ ko teg vaccin chinois yi bu ñu rawee nañu wër na xay fa ñoo nar a xenu ki coow dëgg nag mooy njiit réew mi Macky Sall yaaw seetal xam nga dafa jël ay sandarma ak ay policiers yu bari tasaare leen Dakar ak Thiès ngir ñu saytu sàmmwante ak couvre-feu bi naka noona yenn docteur wala fajkat yi nga xam ne ñoo nekk ci corona bi seen prime yi maanaam ndàmpaay yi xaalis bu bari bi ñu leen war a jox loolu fan la ko Macky nar a jëlee source ay yéen a kaay ne fa ko war a lijjanti nag nay leer laneen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy ne jaari saw ñibbisi na Sénégal ni ki démb te mooy yéen a moo ñu xamal na Serigne Mbaye Thiam moo dem France jël si ko andi ko ma nga ci wér gi yaramam dara dalu ko ki dal nag ci kaw Serigne Mbaye Thiam ñaawlu taxawaayam ci mbiru jaari saw yi du kenn ku may dàmbooj syndicaliste jàngalekat la yow seetal nee na jaari saw bindut benn lettre Serigne Mbaye Thiam daraa ci amul te concours général bi ñu wax ne jaari saw moo ko jël 2018 nee na loolu amul du dëgg li am nag dëgg gu kenn mënta weddi mooy ne Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières ma nga ca kaso ga te fi mu toll ni fa feebar lool lu mu lekk wëcc ko ma nga jeex ba tax tribune yéen kaay di artu ne ah nañ mooy tudde laas yéen kaay ko voilà gis nga mbiru Boubacar Seye moomu Macky fi mu toll dugal na ci loxom nee na milliards yu mbootaay xeet yi bëgg képp ku laale ca xaalis ba leeral ko ak fa nga ko dugal le quotidien yéen kaay na ko Macky kay soobu na ci géej gi ngir xaalisu xeex ñiy dugg ci géej gi ñu defal ko ab rapport mbooleem fu ñu financé ñu wax ko ko la mu ñu wax moom source ay yéen kaay mooy accord de pêche yi Sénégal def ak réewum France ak Espagne mel na ni fay xeeñ ak mafia njublang tappale gu mag moo ci xam nay leer la laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy na njiit réew Macky Sall fa bëgg ñu jëfee loi bi andi ak coppite ci wàllu liggéeyu tasum xibaar ginnaaw bu ñu ko wotee assemblée direct news ne Macky nag fi mu toll nii su tëddee dana nelaw ba yaandoor ndax gannaawam bandang ah ku jégi opposition bi ko waroon di attaqué fi mu toll ni tas na leen ba kenn déggatul leen société civile bi ñoom ñi am lu ñu war a lijjanti ba taluñ Macky surtout jëm ci troisième mandat bi ah réew mi Idrissa Seck xanaa kenn yaakaaru dégg Idi naan troisième mandat du fi amee su ko defee 2024 duñ ko ceebal de te moom ci ko ko ceebal rek lay dox ma dox dem ci libération fekk fa maître Moussa Diop bi jiite woon Dakar dem dikk ak ko jiite sàkku benn milliard ndàmpaay ci fukki nit ak benn yi nga xam ne ñoo nekk ca bureau chambre de commerce bu ndakaaru ndax fa ñoo tuumal sëriñ bu waxal ko loo xam ne dara du ca dëgg les écoles yéen a ne moo tax yóbbu na leen ca yoon enquête yéen a kaay dëggal ko la mu dëggal moom si du quotidien mooy soldat si armée bu Sénégal jàmbaar ya ña raatale fa ñuy rajaxe robel ya ci xanam gu métti may ñu leen jàmm ña leen di song ci xàllab boofa ba bilaas sikon ak mbisim loolu baax baax ci askan wa ñu rajaxe seen kër ya ca quartier mbuur ba nekk Thiès njiitëram Macky nee na leen faay fomp seen ronqañ seen situation faa koy régulariser L'Évidence yéen kaay moom di ñu xamal ne ab taax moo juree ku daanu ci kaw ay liggéeykat ba ñaari doomu aatama faatu ca ndeysaan Vox Populi dëggal ko na bâtiment boobu ab usine nekk ca commune bu Kër Moussa ña fa gaañu nag ak ñoo fa faatu man benn la laneen lu ma yëg njaboot ak njool sénégalais ya ñu taxaloon seen kër ga Amérique te juróom ca ñoom faatu woon ca ña leen faatoon maanaam ña taxal seen kër ga ñetti xale lañ yu am fukki at ak juróom ak juróom benn takk der yu Amérique teg nañ leen loxo ñeneen ñu ñu tegoon loxo muy daam amaar ak ñam hàndal ci faatu Hiba Thiam xale bu jigéen bañ waxoon na fa jël drogue bu bëri faatu yéen a ngi koy fàttaliku ci couvre-feu ba critique yéen kaay ne na xàtte ba def nañ ko ñoom daam amaar ak ñëpp bàyyi nañ leen ñu dem ñibbi donte daan nañ leen juróom benn weeru kaso waaye tëdd nañ ko ba pare yéen a kaay bi ne juróom fukki million lañu wax na daal la ñuy ndàmpee njaboot ga yéen kaay bi na lii nag mooy xaw xay dëgg ab xale bu jigéen nga dee nii tëdd mujj fenn lii moo daloon Mati Mbodj mannequin bi yéen a ngi koy moom di ñu benn xale bu góor daal moo filmé ab xale bu jigéen mu def yaram mu ne nag ñoom seen daal léegi nag mu jël vidéo ba moom xale bu góor bi yónnee ko bàyyu xale bu jigéen naan ko soo ma joxut lii soo ma defarut lii danaa xuññi sutura weer sa doom bu jigéen bi ci internet bi ñëpp gis ko laneen lu ma gis man ci turbine yéene kaay mooy benn journaliste bu mag di def chronique ci télé yi doomam daal moom lañ jàpp ci sàccam oto allah jox nga sa bàyyi lu mu chronique de fi mu toll nii xam na lu wax dëgg